tàllal leen loxo yi gën di mindeef jaara way gën di mindeef jaara jiñ jiñ leen bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llaahu falaa mudilla lah wa man yudlil falaa haadiya lah wa ashhadu an laa ilaaha illa lah wa ashhadu ala man qaala bu'ithtu li utammima makaarimal axlaaq wa qaala aydan laa yuminu ahadukum xatta akuuna ahabba ilayhi min waladihi wa waalidihi wa naasi ajmain ani sayduna muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi mbokki téléspectateur u fkr 92 point com dikkaat nañu fi ak yéen di waxtaan ak yéen ci seen émission bu mag boobu nga xamante ni mooy ma sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sopp nag mooy li wër mooy li wér mooy li mooy li wér mooy li ndax Seydina Muhammad moom kese moo wax ne ku ma sopp ëllëg mag yow ñooy bokk benn àjjana te nag du ñu nekk mukk mukk mukk mukk jullit feeg feeg sallallahu alayhi wa sallam sunu papa du ñu nekk mukk jullit feek sallallahu alayhi wa sallam gën yaay du nekk mukk jullit feek sallallahu alayhi wa sallam sunuy doom du ñu nekk mukk jullit feek sallallahu alayhi wa sallam gën a ku yàlla bind xadis bu wér la nee na laa yuminu ahadukum xatta akoona ahabba xatta xarfu nasbin wa gaaya du ngeen nekk mukk jullit feek man Seydina Muhammad gënalu leen gënalu leen seen papa gënalu ma leen seen yaay gënalu leen seen jëmmi bopp Omar dafa toog ak moom bés di waxtaan ak moom Seydina Omar ibnu Xattaab ne ko Muhammad alayhi salaatu wasalaam di wax ak moom di waxtaan ak moom jékki-jékki ne ko bi abii yaa rasulullah maa ngi lay giñal ci sama baay sallallahu alayhi wa sallam ne ko Omar mu ne ko labbay ko mu ne ko kenn du giñ ku dul ci yàlla rasulullah di ko laaj ne ko Omar mag sa papa ku la gënal Seydina Omar ne ko yow Seydina Muhammad yaa ma gënal sama baay Rasulullah ne ko Omar mu ne ko la béy ko mu ne ko mag sa yaay ku gënal mu ko yow Seydina Muhammad yaa ma gënal sama yaay Rasulullah ne ko Omar mag sa bopp ku gënal Omar ne ko ah fonk sama bopp de loolu foog ñu seetaat ko Rasulullah ko doo jullit sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan mu dem defaru jiwaat moom Omar ngémbu jiwaat tuub ndeysaan dellu siwaat jox loxo Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ni ko tuub naa la ma waxoon Seydina Muhammad yaa ma gënal sama bopp yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay yaa ma gënal ku yàlla bind rasulaay ne ko yaa ngi soog a nekk jurit ne laa yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain sallallahu alayhi wa sallam lan la yàlla wax annabi awla awla allahu akbar bil muminina min anfusihim lan la yàlla wax sayyidina Muhammad moo gën a yay ci yéen rasulaay bu soxla woon suñu loxo dañu war a dagg suñu loxo jox ko rasulaay bu soxla woon bu soxla woon bu soxla woon sunu tànk dañu war a dagg sunu tànk jox ko sayyidina Muhammad lu mu soxla ci ñun sallallahu alayhi wa sallam dañu war a jël sunu jëmm yi jox ko moom moom lépp yàgg naa di wax ne ku la abal bët da ngay xool fa ko neex. moom nag yonent Yàlla Muhammad boobu ci nga xamante ni du moroomu kenn xatta al anbiya xatta al anbiya yi sallallahu alayhi wa sallam féet na leen kanam moo tax. mu ne fuddiltu alal anbiya bi sittin sallallahu alayhi wa sallam na yàlla gëmale na ma ak yeneen yonent yi ci juróom benn mbir juróom benn mbir ñu ne ko rasulaay ban la ak ban ak ban ak ban sallallahu alayhi wa sallam mu ne utitu jawaami alkalimi mooy bu njëkk bi wa nusurtu bu ru'bin mooy ñaareel ba wa ujilat lii ganaimu mooy ñetteel ba wa ujilat lii arda masjidan wa tahuran wa ursiltu ila xalqi kaafatan wa xutima bin nabiyuuna sadaqa rasul yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam gën naa yeneen yonent yi yàlla mi ko dogal waaye gënat naa leen ci juróom benn mbir man Seydina Muhammad nee na utitu jawaamiul kalimi Seydina Muhammad nee na yàlla ommatal na ma ommatal na ma lépp luy kaddu mboolem kàddu yàlla ombatal na ma ko sallallahu alayhi wa sallam boo làkkee ak moom tubaab mu gën la ko dégg sallallahu alayhi wa sallam boo gën la ko dégg sallallahu alayhi boo làkk ak moom tukulóor mu gën la ko dégg sallallahu alayhi boo làkk ak moom séeréer mu gën la ko dégg sallallahu alayhi wa sallam moom màndeng mu gën la ko dégg loolu mooy nit ñi sallallahu alayhi bu xar jooyee léegi mu xam lu mu jooy sallallahu alayhi wa sallam bu picc sabee léegi léegi léegi léegi léegi léegi mu xam li mu sab lan la alayhi salaatu wasalaam non looloy njanaaw yi sallallahu alayhi wa sallam objet bu fi taxawoon léegi micro bu ñu taxawoon léegi mu wax ak ñoom bu taabal yi taxawoon fii bu jàkkaarloog table mën na wax ak moom bu jàkkaarloog chaise yi mën na wax ak ñoom bu jàkkaarloog banc yi mën na wax ak ñoom bu jàkkaarloog miir yi mën na wax mën na wax ak ñoom jamaa daat yi aj maa waaj génn nañu malaaka yi bu ñu ñëwee mu wax ak ñoom sallallahu alayhi wa sallam jinne yi bu ñu taxawoon mu wax ak ñoom bu ñëpp dégagé mu wax ak yàlla subhanahu wa lépp luy kàddu yàlla omatal na ma ko dafa ànd ak anas benn bis anas entre ci yàlla omatal na ma lépp luy kàddu anas ibnu malik man rek rasulaat yu doxantu sallallahu alayhi jékki-jékki am benn picc bu sab sabaat sallallahu alayhi ne ko anas mu ne ko la bekk mu ne ko mbaa xam nga picc bi lu muy sab nii hal ta hal taarif maa yaqulu haza tayru anas ne ko allah wa rasul aalam yàlla ak yoon yàlla sallallahu alayhi wa ñoo xam man xaw ma ndax xam nga lan la picc bi di sab anas ne ko man xaw ma ko yàlla ak yonentam dong ñoo ko xam allahu akbar mu ne ko picc bi dafa gumba du gis dafa xiif ne yàlla dama bëgg nga wërsëgal ma wa qaala tayru yaa rabbi fa inni ama inni jaayoon ay yàlla xiif naa maa ngi nii gumba xiif naa yàlla wërsëgal ma lii la picc bi wax anas xool yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ko dëgg-dëgg sadaqa rasul billaay yaa mën wax ak ñëpp sallallahu alayhi wasallam ñu toog tuuti am benn njanaaw bu naaw benn njanaaw bu la neexee nga ne lëppaa lëpp bu la neexee nga ni weñ la neex rek tabaaraka la ñëw ci booru gémmiñu picc bi dugg ci biir gémmiñ gi allahu akbar picc mi sàq mi sàq mi sàq mi sàq mi sàq mi lekk ba rekk picc bi sabaat sabaat sabaat salaasam ne anas ibnu malik est-ce que xam nga picc bi lan moo tax mu sabaat nii est-ce que xam nga lu mu wax anas ne ko la ma la waxoon rek wa rasul alam yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xam alayhi salatu wasalaam yàlla ag yonent bi kese kese kese ñoo xam allahu akbar rasulaay ne ba picc bi lekkee ba pare ba picc bi lekkee pare dafa ne alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil sunu borom subhanahu wa moom kese moom kese moom kese moom rekk mën a fàttali fàttaliku jaamam ndeysaan rekk mën a dimbali jaam jàppale jaam lii lépp ci baax anas ne rasulaay gëmoon naa de waaye tey sama gëm gën na yokk boobu bu njëkk bi waxtu ci jawaamiul kalimi nee na omatal na ma juróom benn mbir bu njëkk bi mooy sunu borom dimbali na ma man rasulillahi ba kàddu bu jóg xam naa ko ñaareel ba wa nusurtu bi roobin allahu akbar yàlla dimbali na ma dimbali na ma ci sama noon sama noon ñemew ma allahu akbar sama noon ñemew ñetteel ba wa xulat lii xaraayimu sunu borom subhaanahu wa dimbali na ma ba màng màng moom la tubaab di wax butin màng ga sunu borom daganal na ma ko su ma xeexee ak yéeféer yi ba pare ñu xare bagage bu ma jël dagan na ci man allahu akbar ñeenteel ba wa juilat lii arda masjidan allahu akbar defaral na ma defal na ma suuf si suuf si defal na ma ko defal na ma ko muy sijaada sama xeet wi fu ñu ne bu la neexee julli fépp daggan na ci ñoom juróomeel ba moom sallallahu alayhi wa sallam may wax wa ursultu ila xalqi kaafatan sunu borom ci ñëpp la ma yebal ba ilaa yawmul xiyaam ndax maa tëj yonent yi ci ñëpp la ma yebal mooy juróomeel ba ci ñëpp góor jigéen mag ndaw ku xees ku xonq ku bëla ku jaune ci ñëpp la ma yàlla yebal ila kafatinaas allahu akbar juróom benneen ba sallallahu alayhi wa sallam wa bi nabiyuuna sunu boroom ci man la tëjee risaala ci man la tëjee yonent yi allahu akbar moom kese moo am loolu alayhi salaatu wasalaam moo tax mu ne yeneen yonent yi gënal naa leen gën naa leen de ci ndogalu yàlla waaye gën naa leen ci juróom-benn yi tabaarakallaa waxtu yu dab nañu seen émission ngi noonu muy ma sopp rasulillahi alayhi salaatu salaam ci seen site bu mag boobu fkr 92 point com ñu yemale ko foofu ba ci fan yi di ñëw insha allahu rabbi ndax waxtu yu moo ñu dab assalaamu aleykum wa rahmatullah wa tàllal leen loxo yi gën ji mindeef jaara way gën ji mindeef jaara